delloo nuyoo bi ziyaara bi bu baax sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mi ngi delloo nuyoo bi ak ziyaara bi bu baax di am mbégte bu baax a baax a baax di am mbégte bu baax a baax a baax ci taxawaayu sëriñ Ousmane ci taxawaayu sëriñ Ousmane Moustapha mi. ak sëñ Moustapha mi. ñoom ñi nga xam ne. ñoom ñi nga xam ne. ñoo indi bokki taalibe yu baax yi. ñoo indi bokki taalibe yu baax yi. am nañ ci mbégte mu na loolu am na ci mbégte mu rëy a rëy. dolli ko nañ ci yaakaar ju rëy. nee na dolli ko na ci yaakaar ju rëy. Serigne Touba tawféexi boromam rek la. nee na Serigne Touba tawféexi boromam rek la. war a gën a sant yàlla ci suñu borom mi nu booleeg moom. bokk ci dugg ci tawféex jooju. nu war a gën a sant yàlla ci sunu borom mi nu booleeg moom nu dugg ci tawféex jooju. tawféex jooju nag moo indi lii. nee na tawféex jooju nag moo indi lii. mbooloom taalibe bi moo xam ne seen xel dañ ko seen seen seen lépp dañ ko jëme ci Sëriñ Tuubaa. mbooloom taalibe bi moo xam ne seen xel seen lépp dañ ko jëme ci sëriñ Touba. di boroomi xam-xam. tey boroomi xam-xam. loolu tawfeexi sëriñ bi rek moo ko mën a andi. nee na loolu sëriñ bi rek moo ko mën a andi. moo moo moo tax mu feeñale ko nii. moo tax mu feeñale ko nii. ñoo xam ne njabootu sëriñ Touba lañu. ñoo xam ne njabootu sëriñ Touba lañu. nekk eh, am yitte ju toll ne ji am. am yitte ju toll ne ji ngeen am. bëgg rekk loo xam ne eh, eh, dana dana gën dolli ko ci Touba. bëgg rek loo xam ne dana dolli ko ci Touba. te dëgg la xéewal yi mu fii seen Touba ren na waaye ndox nag moo ci jiitu. dëgg la xéewal yi ñu fi séenu bari na waaye ndox da cee jiitu. ndax Serigne Touba fag faggu na lépp. ndax Serigne Touba faggu na lépp. kon yéen li ngeen war a njëkk a def mooy sant Serigne Touba. kon yéen li ngeen war a njëkk a def mooy sant Serigne Touba. tawfeex jooju nga xam ne ci ngeen bokk. ci tawfeex jooju nga xam ne ci ngeen bokk. kon bu ngeen jógee ànd ak yitte jure ju toll ne ji ngeen amee. kon bu ngeen jógee ànd ak yitte jure ju toll ne ji ngeen amee. لولو الحمد لله رب العالمين داي گنا دالال سونو خيل رك لولو الحمد لله رب العالمين داي گنا دالال سونو خيل رك نخ نانا نيم كو waxه ليگي رك سيرن بي فاغونو لپ لوما تفاغو رك فاغونو لپ لوما تفاغو رك سيرن بي فاغونو كون يين nee na mi ngi leen di sant ci yitte ju rëy jooju. taxawaay bu rafet boobu. taxawaay bu rafet boobu. jóge ci yéene ju rafet a rafet a. jóge ci yéene ju rafet a rafet a rafet. Pastef bu bu bu sell sell bu wér a ak Pastef bu sell sell bu wér a wér a wér. bu xasee aju ci Sëriñ Tuubaa rek. ndax xol moom bu xasee aju ci Sëriñ Tuubaa. Pastef ba sell na wér na. ba sell na wér na. kon nag jërë jëf. nee na kon jërë ngeen jëf. ñoo ngi leen di sant bu baax a baax. nee na mi ngi leen di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax. kon nag dégg leeral yi. nee na na leeral yi. ci wàllu gëstu gi. ci wàllu gëstu gi. xam ndox jiitu ci. te ndox jiitu ci. loolu loolu day lu nu lu nu aajowoo aajowoo loolu day lu nu aajowoo aajowoo aajowoo. ndax ndox dafa dafa nekk dafa moom mooy lépp. ndax ndox moom mooy lépp. kon nag sunu aajo su ajo yi bari na te rafet na njort ci ne aajo yooyu yëpp dana faju kon nag sunu ajo yi bari na yaatu na. waaye rafet nañ jortu ci nag yëpp day faju waaye ndox nag moo ci jiitu waaye ndox nag dajaa jiitu mooy mooy aajo ji tey ji taxaw tem mu fi mu nekk nii ndox nag mooy aajo ji taxaw tem mu fi mu nekk nii kon ñëpp ni ngeen ko defee rek war nañoo jëmee suñuy xalaat ci noonu ndox di amee Tuuba ba doy sëkk nee na kon ñun ñëpp sell di ndox mu sell ni ngeen ko defee ñun ñëpp war nañoo jëmee suñuy xalaat ci ndox di amee Touba doy te sell. suñu yitte suñu yitte ñu jëmee ko ci ndox di amee Touba te sell. ndox na na ndox na Touba mën a amee ndox mu ndox mu doy mu sell. na Touba mën amee ndox mu doy mu sell. loolu ñun suñ suñu yëpp suñu yitte jëpp ñun ñii. nee na ñun ñii. rawatina yéen rawatina yéen ñii. rawatina yéen ñii. dañ ko war a jëmee rek ci ndox. dañ ko war a jëmee rek ci ndox. na mu gën a gaawee. na mu gën a gaawee. waaw noonu rek la demee. nee noonu rek la demee. mbënd maa ngi fi. mbënd maa ngi fi wax dëgg yàlla lu lu waar la ndax lu rafet ci njort. moom wax dëgg yàlla lu doy waar la. ak lu métti metti métti métti métti. mënul lu rafet ci njort rek. lu métti métti métti. ndax bu xewee fii fii sëriñ bi. ndax bu xewee fii fii sëriñ bi. loolu dama dafa mel ne xëy na dafa bëgg indi ndox mu. ndox mu ndox mu bëree bare bare bëri mu sell. loolu xëy na dafa bëgg indi ndox mu bëree bare bëri mu sell. moo tax natt boobu jiitu. moo tax natt boobu jiitu. noonu rek la ko mën a gisee nee noonu rek la ko mën a gisee. ngeen ko mën a jëf. kon jërë ngeen jëf. yitte jàngoo kon daal yitte jàngi noonu. ñun ñëpp daal nañ ci jëmee suñuy xalaat. ñun ñëpp na ci jëmee suñuy xalaat. ñun daal di gën a mën a amee. ñun daal di gën a mën a amee. Euh, liggéey bi liggéey Sëñ Tuubaa dafa rëy lool. liggéeyam Serigne Touba dafa rëy lool. ndax yàlla rek la yàlla rek yàlla rek la doon liggéeyal. ndax yàlla rek la doon liggéeyal. moom liggéey te yitte jooju moom la nu fi bàyyil. te yitte jooju la nu bàyyil. moom la nu fi bàyyil. moom la nu bàyyil. liggéeyal yàlla dong moo nu fi moo moo nu a bàyyi. liggéeyal yàlla dong moo nu fi mën a bàyyi. kon nag. kon nag. yitte jàngoo ko. yitte jàngoo ko man nag lay sama yitte dëgg-dëgg. nee moom nag li yitteem dëgg-dëgg. sama bànneex. bànneexam mu gënal ma. mu tam gënal ko moo di ñu indi ndoxum Lac de bi ci Touba rek. moo ñu indi ndoxum Lac de la nekk. nekk di ba caag mu ne faaw mu dellu ndax liggéey ba. Mhm. boobu mu gisee géej doganteeg doganteeg doganteeg. mu ne doganteeg. doganteeg jàngu bu rëy bii. doganteeg jàngu bu rëy bii. nga xam ne fi la ko sëriñ bi bàyyi. nga xam ne fi la ko sëriñ bi bàyyi. mu xam ne moom buñ ko ko defuloon itam defal nañ ko ko ba noppi. moo xam ne buñ ko ko deful loolu itam defal nañ ko. yàlla nee na suñu borom na ko ko. na suñu borom defal na ko ci barke bi yonent bi. ci barke bi yonent bi. loolu moom waaw yitte jooju nag. nee na yitte jooju nag dafa jàmp lool. dafa jàmp lool moo tax bi ma jógee rek. moo tax bi mu jógee. mu daal dal ci kawam. mu njëkkee dal ci kawam. waaye bu dul woon loolu. na bu dul woon jànkuwaay Lac de Guiers rek lay song. Lac de Guiers rek lay song. moom ñëw Tuubaa. kon yoon waa ngi noonu. waaw ah. bisimilah yoon waa ngi noonu. tawfeex ji rëy na yaatu na. nañ ko song rek. Ah, waaw toog nañ ko song. Ah,